symphonie parce que soo ko déggee automatiquement sa xel ci musique lay dem ay man tënkuma ko rek ci musique góoru jigéen sax bu ñu nekkee ci kër pour mu neex dëggantaan njaay seen sëy dox il faut moom symphonie symbiose symphonie c'est toute une vie waaw symphonie mooy lu ñu boole mu neex te déranger wu du may nekk ci mbedd mi pour xam écho yi je pense sax yéen a ma gën a xam dara mais d'après ñi may jege si ak ñi ma ñi nga xamante ne ñii maa ngi jot seen message wala via sama Instagram wala sama site ñooñu dinaa mën a xam xam naa ñu daal neex na leen trop trop mais ñi nga xamante ni nag bon ñu ngi partout en Sénégal xaw ma na lañ koy kiiwee mais d'après le net gis naa ñu daal apprécié nañu album bi. riigu riigu kaw ba yooyu ay système la woon rek du maa bu buñ nee kaw nga ne Wally Seck buñ nee riigu nga ne Wally Seck balaa balaa ngay wax da nga naan demani ba ñëpp déglu la nga doog a wax wax fi la neexee maanaam dama am problème choix quoi ah, am problème de choix damay déglu benn morceau ba ci yàgg ma ne morceau bi laa jël après ma dem jël beneen morceau mais xam naa ni daal mën naa réciter trois morceaux yoo xam neex nañu ma trop euh, xale mooy yóbbante euh, euh, symphonie neex na ma trop aussi parce que les mélodies ni mu déplacé wu ak musicalement j'adore à part boobu j'aime bien Taxi Love ak daf may dal daf may dal neex na de waaw ah dafa dafa xaw drôle quoi paroles yi ñoo drôle j'adore et que c'est ma vie en album bi ba léegi nii way naa ko ba pare mais bindu ma ko en fait mënuma bindu en fait dama koy way ci environnement bi en fait su ma bindee du ma ko du ma ko way ni mu waree day ñëw sa en fait da ngay sol casque boo solee casque da nekk ci biir. d'accord dégg naa aussi ndem si yàlla si nangu loolu noonu na ku ci mel ni Alain. waaw mu joué euh, saxi ku ci mel ni Ibrahima euh, muy joué violon nekk ci groupe euh, Mélodie Divine Mangone Obam bassiste Ibou Mbaye ak Amady guitariste Babacar Seck Magay mm, Moussa Traoré ak waram daan na ak euh, ki Seck euh, euh, le fils de Zal Seck Assane Seck bëri na bëri na album bëri na touche. rivalité bi la war a rey wala. rivalité musiba naaru eh, ki nga xamante ni mooy le monument des sénégalais le monument de la musique sénégalaise lu may wax sama roy kaay la kay waaye rival. non est-ce que déglu nga baax li ma wax. Ah. non non j'ai pas dit ça. j'ai dit j'ai dit désolé ku ko bëgg jël ni koy jëlee daw ma ci saala yaay ndeer j'ai parlé de désolé qui reflète un peu ma vie et j'ai ku ko bëgg moom daw ma ci saala yaay ndeer ba tey ji daw ma ci saala yaay ndeer jamais parce que du loolu mooy suñu but sax ñun ñun dañu bëgg fekk musique fu mu nekk ñu xaw ko déplacer yóbbu ko bouger suma papa yi def nañ ko yóbbu nañ ko ba ci kaw dañ ko bëgg ajaat ba mu gën a kawe loolu du suñu biir sax et j'en suis persuadé que mi ngi lay reetaan nii. quand on dit jeunesse en échec loolu un échec pour certains une réussite pour moi. j'ai am à dem ba Genève dem gis beneen public bu ma mosul gis la preuve bi mu jógee Genève nga gis tubaab bu tatoué yaramam def ci faramarin bind ko dem tatoué yaramam def ci faramarin pour une première fois Genève la ma gisee bëgg ma est-ce que tubaab boobu yokku ma ña fa nekkoon mosuñu dégg Wally Seck ku ne xam ne ni Genève ville la boo xamante ni dañu ñoo ñooy ñooy tubaab bu ñu wax tubaab fuy def neuf mille cinq cent place nga def à peu près six mille et quelques places ci dëkk boo xamante ni vraiment les frontières ne sont pas les mêmes ci yeneen dëkk yi euh, je dirais moi man Wally Ballago Seck chapeau ñeneen ñi gis échec ñoom échec lañu mën a gis mais man ci samay bët am naa ci ndam te dinaa delluwaat en deux mille vingt apolitique je prends le président Macky Sall, le père de toute la nation, comme un papa. Je suis son fils, basta. Je supporte pa un politicien man duma politicien damay nekk waykatu peuple bi waykatu sénégalais yëpp kuy def sa concert nag di ko may jeunesse bi boo ko yóbboon ci meeting foo ko mun ci yóbbu naa la fekk wayal la parce que dañ ma fay suma xaalis ma dem way ko ñibbi c'est mon métier dama koy appliquer réellement soo ma wooyee ci pencum Dakar ba def wella ci pencum Dakar ça dépend ci mais man Wally Ballago Seck je suis athlétique. yaa ngi foofu ba léegi yow. c'est Dakar bi ci yoonu maanaam. mooy waaye. Wally Seck Pape on dirait que yow yaa ngi gën a alimenté rivalité pourquoi. parce que tout le monde se mhm. comme maa koy alimenté nag yow dimbali nga ma tëj nga wax ji bés ni ki tey dootuma ci question yooyu bii dama koy tëb. dootuma toog fen ba tudd turam tëb naa ko bisimilah. et bëgg naa vraiment ñu may gis yeneen facette lu ci mel ni volet social ku ne xam na ni bëgg naa ko sama bëgg naa aussi sama album international bu génne que les vraiment. après si ñu xam ni Wally Seck liggéey na te dina lu yàgg di ko liggéey naa vraiment musique sénégalaise buñ ciy dégg juróom ma bokk ci ñuy dégg wala bokk ma succ parce que ku nekk li ngay def da nga ñaan yàlla nga jël ci pay waaw. waaw dafa dafa ni rek euh, ni ñu may engagé mooy ma ñëw mbalaxal leen je suis un chanteur waaye nag géwél laa di Faramareen fii sama maam di waaye naa leen daan naa leen man woy rek ma war ak ko dem ba sikk ak balax na nekk musique rek man déranger wu ma mais ça dépend ci aspect bi engagé waaw. bi may tëggal ambassade Suisse dama dem ak euh, kii bu équipe bu restante waaye dama dafa neex acoustique laa ko def la preuve ci réussite Genève laa xamante ak ambassadeur bi laa xamante ak eh, waa ambassade bi seen seen ambassade mën inauguré donc Genève bi bunt yi ma ubbil macha allah kontaan naa ci loolu te Genève a tax ma am maison disque kontaan naa ci loolu. waaw dina dinañ ci ñëw su album bi su su su promotion album bi passé dinañ ci ñëw dinañ ko dégg. waaw mën naa ne de mën naa ne de les réalités sénégalaises daw ma ci saala yandeer déggoo ma de bañatuma ci dara